dañoo yeewu ay huit jàpp neuf heures yooyu ndox mu jëkk-jëkk commencé dugg si bu ñu commencé dugg si ñoo xam ne maam ci biir kii bi la jëm si ñu commencé bagage yi nga xamante ne ñu ngi biir kër gi ak coupé-courant bi yooyu na ba ñu yàqu kii ko mais laata ñu neppi sax ndox mi gis nga ne mel ni ndox mi nga jógee canal ba fale daa raxmaan xayma dala xam naa lu mu gàtt gàtt moom ay soixante jàpp soixante-dix personnes ñoo xam ne ñu doon liggéey fii kenn ku ne mu ngi yor ay toolam waa dëkk bi ñëpp fi leen daan dunde ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo daan jóge tuuba fi leen daan liggéeye borom oto yi nga xam ne daan indi client tamit fii mu doon seen liggéeyukaay ndox mi ñëw na yàq na fi yàq na yoon wi borom oto yi instant yii fi ñëw parce que amatuñu fi ñu jaar li fi nekk ci ay garabu ak fruits bari na fi ay lu mel ne pomme keneen ay limon ay papaya ay banana lépp. ñu ngi fii bari fi lool te nga xam te ñoo jiite wàllu magal gi ci Touba seen saa seen lépp ak li muy àndal fii la nga daan jëlee lépp astaay taxaw na te bu fekkoon daal doon loo xam ne da ko yàq benn fan mbaa benn weer mu tane mais fii moom fii ak moom mëntoo fi liggéey. sam gis nga ko gis nga foofu noonu dafa continué noonu nga jëm te ki nga xam ne fu muy teeree yi. xam nga yàq na fi lu bëri loo xam ne mun na su koo xayma. Euh, fi nekk na dëkk boo xam ne ay liggéeykat rek moo nekk si dëkk bi ndax euh, bëri na ñoo xam ne ñu ngi dem ci gaal yi ñii waroon na dem mais ñoom duñ dem ci gaal yi ndax lii rek mooy seen mébét pour liggéey kon daal li nu bëgg mooy état jàppale nu bu baax a baax ci euh, lii nii parce que lii jafe-jafe mett la ndax am na forage boo xam ne mi ngi woon ci biir ci la waa dëkk bi naan te fi mu toll nii forage boobu comme waa dëkk bi ndox mu nuy naan sax fi mu nii am nañ problème am.